di leen jox seen wàccuwaay mbokk yi am na actualité bu fi ruus mais dañuy bàyyi mbakkan mu nuyoo ak mbokk internet di si Rewmi TV ñu dugg si waxtaan mbakkan ñu ngi lay nuyu di la siyaare. Kalidou maa ngi lay fay di nuyu mbokk internetu li ci réew mi yëpp di nuyu Babacar Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di la jox sa wàccuwaay. Hmm. di rafetlu liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy amal ci li ci réew mi TV. te àdduna noonu la. as ndaw bu nekkee ci mbir di ci yëngu da ci wane kéemtilaay kàttanam ba sunu boroom jàppale ko fi bi ngeen ñëwee ci làmb naam yàggul waaye fexe ngeen ba marqué ci seen empreinte ci jom ci fulla ci fayda bërki démboo njaay ngeen di wane seen mille abonnés yi nga xam ne cent mille cent mille abonnés yi nga xam ne moom ngeen am ci youtube bi ndax cent mille abonnés tëdd di nelaw mayew ko liggéey rek ko koy mayee mhm. di ñaanal tamit fàllu Serigne Fallou Seck PDG borom tapisserie Touba Xay rek di ko ñaanal suñu borom guddalu fanam yokk wërsëgam ba li mu bëgg ci yoonu Serigne tubaab bi suñu borom yeggaleel ko ko di nuyu équipe bu li ci réew mi TV yëpp di leen wax na leen jàpp leen booloo leen bokk leen ndey ak bàyyi te luy seytaane ak leneen bañ a dox seen diggante ndax ndaw des fois bu ñu nekkee ci bërëb te bañ a déglu kenn ndax ndaw des fois bu nekkee ci bërëb di ci yëngu dafay moytu ñiy ñëw di wax ku lay ñëw di la wax boo weetuwaat ak sa xarit waxtaanee la moom ne diw nee na ma nangam. Mm. bu yàggee di ngeen ànd te ànd dëggu lay doon. Mm. loolu daal laa amoon lu ma leen di wax di leen encouragé woon bu baax a baax neen góorgóorlu leen sëñ Fallou nag bu ko yàlla fayee xolam waxuma la ci réew mi yeneen ak yeneen a ngi ñëw. Mm-hmm. ndax ku gis màggalu Sëriñ Tuubaa gi ni mu ciy bàyyee waaram yëkkati ay millions ndax xaalis nee mu koy wax ci xol la sax mhm. xaali wa karaw bakkan ñooyam boo koy buddi faw boroom yëg mhm. ku mën a génne ay millions ci màggalu Serigne Touba bi def ko ci mhm. génne nag huit cent mille génne ay pitax génne pigeon génne leneen ak leneen pour benneel ko gan ñi rek kooku nañ ko ñaanal mu gudd fan yàgg yàlla na ko Serigne ma Cheikh Mamadou Fadal turandoom daal di koy wallu ba fay ko fay gën fay màggal gi ah. moom na moom eh macha allah wax dëgg ci yàlla màggal gi neex na moo xoolee génne na alalam génne dooleem génne mooyam def ko ci màggalu Touba génnee xaalis bu bëree bëri boo ko xoolee ay millions la ci def. ay millions ay millions la ci def. Mhm. moo tax Serigne Momadou Fadal mi nga xam ne moom la doyloo. Mhm. ñu dippee ko ko muy turandoo mhm. moom mooy fay. yàlla na ko fay fay yi gën ci fay yi. te Cheikh du Fadal day sëriñ Fallou sama waa ji nga xam. nga xam ne ku yor dara saa boo jàqee boo ko woowee mu wuy si la. yaakaar naa ne bis bu ko fayee sëñ <laughs> Fallou ko mu ñaagal nga ñaagu. waaw macha allah kàddu yi am na solo en ce moment Makan ngay reporter nekk si làmm. làmb nekk si ay problème ini lomotif am lomotif ko su Bakary fii ah ba aadamoo jot si mbir yi makat Ndiaye en tant que reporter nekk si làmb ñi da nga gisee problème boobu noonu lomotif yi ci làmb ji. <laughs> lomotif yi Kalidou su ma ci waxee dëgg rek lomotif yi amul du dëgg. waaw lomotif yi du dëgg amul te man Makan maa la koy wax. ba ma ci toogee wala képp koo xam te ni mu ngi dégg ci lomotif yi ba xam da cee mës a gis benn image bu ko ci nit wan ku am na ko génne woon ko. wane ko rek wane ci image ku ko am na génne wane ne lii rek junj sénégalais rek ñu xool la mu ti fi amul du dëgg te sénégalais Kalidou nañu bàyyi yàq as gor suy dund. Hmm? nañu bàyyi rey as gor dund. Hmm. da ngay nekk ci di dox ñu rey la bu yàgg te boo dee ñoo njëkkee sati. kon loolu am na senegal dañ lay rey ngay dund nañu bàyyi yàq as gor. des fois bokk ci famille boo xam te ni famille bu riche la ñuy doon. Hmm. sénégalais ma ne gancé la yàq la. ba dootoo jarati dara ci réew mi. dañu bàyyi yàq as gor mhm. dañu bàyyi yàq nit kuy dund mhm. dañu bàyyi rey nit kuy dund mhm. dañu bàyyi yàq as gor te àdduna dafa am loo xam ku suturaal sa moroomu jullit sunu borom suturaal la àdduna suturaalante la Kalidou nañu delloowaat xel ci yàlla xam ne yàq doomu aadama bi ñuy yàq ban appart lan la leen njariñ lan la jariñ yàqal doomu aadama ban njariñ laam am yàqal sa moroomu jullit buy dem nga weer ko ci ay moroomu naw leen ba du xajati fenn ban njariñ la am yërëmante nañu yiirante nañu sàngante sutura yi mm-hmm. nañu sàngante ay bi te nëbbante ko mm-hmm. Kalidou mm-hmm. nit a ngi def loo xam te nii ci boppam te bëggul kenn xam ko nit a ngi def lu gën a bon ci boppam te bëggul kenn xam ko mooy lan dama ne mm. nit a ngi def lu gën a bon ci boppam di ko nëbb te bëggul kenn xam ko dëgg nit ku nekk am nga looy nëbb bilaay nit ku nekk ci àdduna la am nga looy nëbb loo xam te ni bëggoo kenn xam ko kon nañu sàngante sutura àdduna sutura la Kalidou àdduna mm. sutura la Sénégal dañ lay waxal lu ñaaw ba nga faatu ñu bëgg laa waxal lu baax. maanaam dañ lay rey waxal la lu ñaaw tuumaal yàq as gor nga bokkoo ci famille bu riis boo xam te ne ñëpp dañ lay yaakaar. Mhm. nga nekk si cooy famille ñëpp naw la nit ñi ñëw génn yàq la ci loo xam te ni kenn du xam ci ay fen ci ay tappale mais nag réseaux sociaux dafa yàq lu bari. réseaux sociaux. waaw internet internet dafa yàq lu bari surtout TikTok. surtout TikTok. TikTok waaw. dafa yàq lu bare bare bari karibu. Mhm. tax na jikko yi yàqu. Mhm. tax na sutura amatut mhm. tax na ku ci nekk saa booy ànd ak sa moroom yaa ngi xool luy gor ay tànkam ba mën a xaawi sutura doomu aadama jikko yee yàqu mm, te jikko yi ci tiktok bi yee yàqoo te dama gis mm. sénégalais mi ngi slogan benn slogan bu doy waar kan mooy lan makan takk sa si muy daw naan gulu gulu gulu gulu vudi barke borom Touba Mbàkke bi mu duggee ci réew mi la réew mi yàqu makan nga ne dama ne mm. sénégalais yi ñi ngi def benn challenge boo xam te ni ñi ngi ciy lor ay doomu aadama te xamuñu ko wallaay ndeysaan muy financer banditisme. Oh. influencer banditisme la ñuy def. nan lan takk sa sim muy daw naam golo golo golo golo barke Serigne Touba ñu ngi ciy yàq ay doomaadama yu bëree bari démb ana benn waay bu toog ca TFM wax ko lii ngay wax nii. dama ne boo xoolee da ngay gis ay nit yoo xam te ne dañ ciy def sinap loolu influencer xale yu ndaw yi nga xam ne ay xale lañu di doog a judd dañuy jàpp loolu moom mooy dëgg banditisme naan védu takk sa sim 15 eh, ñoddi yee eh, eh, yee dëgg bopp bi xam nga dafa yàq na lu bëri. parce que sëñ Tuubaa mi ngi yàq sénégalais yi mi ngi yàq xale yi ndaw ñi. wallaay ndeysaan te ndaw ñi xoolal amuñ dara lu ci tiktok bi lañ jël seen avenir bépp daal ko ci yokk. wallaay ndeysaan njàng sax boo xoolee développé tuuti ni mu war a développé ndax nit ñëpp ci internet la ñu jël pour yàq. Kalidou nañu sàngaat jikko yi. Mm-hmm. Kalidou nañu defaraat jikko yi. Mm-hmm. Kalidou mm-hmm. nañu xam ne réew ndaw ñee ko yor. dëgg la te ñooy dooni magu ëllëg. dëgg la nañu respecté waat. suñu bopp. ndax sunu Sénégal dafa am loo xam te ni mooy sunu symbole moom lañ ñuy bàkkee muy jàmm muy bëggante muy dalal gan muy teral gan muy suturaal nit loolu la Sénégal loolu la Sénégal yeyoo loolu la doomu Sénégal war di tiitaroo fa mu dem mais pas yàqante macha allah macha allah kat bi am na solo Makan Ndiaye mais bu nga gisee coach yi génn def sortie nee na mbëri xool lu ñuy bëree léegi entraînement na reporter di laaj ay question yu pertinent na promoteur yi di tëgg ay làmb yoo xam ne ni nit ñi dañ see war a gis seen bopp mais bu doon loolu dina génnee vidéo yi publier kot su Bakary yan kàddu ngay am sànni ko si coach su Bakary. coach su Bakary na réglé te toog. ah. ndax man dama ko xam bu baax a baax a baax a baax xam naa ko bu baax. moom coach su Bakary. Baboy Sakho xam naa ko bu baax. Eh, ma kan si tur xam ay maamam. ay maamam waaw. ko Soubacar dama xam ay maamam ña nga dëkk dëkk bu ñu naan Kayel. Kayel Kayel boo ñëwee ba Mbàkke uh-huh. ca biir. Uh-huh. foo la ko Soubacar yi dëkk fa la maamam ñu jógee. yaay a ngi jógee Kayel sëy si Mbàkke foofu uh-huh. rek laa yem ak moom xam nga ne kon xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax a baax a baax. Baboy lu ñaaw jarut di wane Baboy senegal ci sutura lañ ko xam Baboy Sénégal ci sutura lañ ko xam Sénégal amul lu ñaaw Baboy Sakho. nañu rafetal nañu seppi li ñuul ci soow mi daal di sànni fële te suturaal sa moroomum jullit mm-hmm. yàq as gor suy sedd ci rey nit kuy dox amul benn sens boo xoolee sunu borom a lay suturaal ndax li tax nga nekk bitim réew boobu di ci liggéey ba mën a toog wax te mu mën a jël sa làmmañ wi tëj ko nga muuma mbaa boobaa di nga wax ak sénégalais yi mm-hmm. mu mën a laa yëg tawat boo xam te nii saa boo xëyee dootoo tala toog ci internet di wax saa boo xëyee yaa ngi bàggante hôpital mais su na ay vidéo de te da dama ne bu amee ay vidéo te ban li ma ci gën a métti mooy des fois mën ngaa wax tuumaal as gor yu bari ah ne nañ am na am nay kilifa yu nekk si réew mi ay promoteurs yoo xam ne ni bis bu ñu wanee seen cër nga xeeb leen loolu Makan Ndiaye. Kalidou Kalidou. des fois yéen reporter yi Kalidou man ku weet xam nga def. maa bokk si Makan. nit kenn gënu koo mën a xam boppam. dama ne ah. ku xam li nga def. nit ki nit lum mu xam xam xam xam kenn gënu koo xam boppam. Mm-hmm. te ku jaaxaan di saw wala kenn tooy yaay njëkk a tooy. Mm-hmm. gis nga bu ñu naxante. Mm-hmm. ku wéet xam nga loo def ku wéetut xam nga loo def. man de maa ngi waat ci yàlla ne billaahi wallaahi talaahi lu mel noonu sax taxawuma ci doxuma ci waxuma ci laalewuma ci taqewuma ci. ah. te naa la waxal lenn sama benn xarit daf maa woo barki démb. mu ne la lan. ne ma maa ngi nii kër Mbay Fall. waaye daam ku ma ci werante maag moom banar a xeex mu ne ma yow ci nga bokk man dama bokk ci famille bu riis maka loolu bokk ci famille bu riis Kalidou hmm. du wax lu ñaaw du def lu ñaaw du ma def lu ma nit di xeebe sa baay Serigne Ndiaye man maa ngi bokk waa Lambaay man Lambaay laa cosaanoo Kalidou hmm. dëkk bu ñu naan mexey Lambaay hmm. ku gëmut Serigne Touba yeewoo ci dëkk booba dëgg suñ bay cergaane yi sama maam ndax keroog bi leen tantanoor woowee ci péncum làmbaay yi Kalidou bëgg leen a tàggaleek sëriñ Touba nga xam ne booba mag ña ku gëm Serigne Touba sax bariwut ci yooyee jamono. tantanoor woo leen si Ñalin Diouf woo Serigne Mamar Mané wëriñ sëñ Babacar Ndiaye Thiergane dajal leen ci péncum làmbaay daal ne weddi leen Serigne tubaa mbaa ma rendi leen dugal leen ci am rënmël takkal paaka bi deret jël kenn ne ko rendi naa Babacar Ndiaye Thiergane weddi Serigne Touba. ñu ne ko da ngay kàcc tegg sa ndombal tànk gën a gaaw lii nga wax dañuy dem Touba ma samay maam dañoo jaayante ba jaayante jotee ñun lu ñaaw duñ ko dox duñ ko wax ay lambay lambay lañ xamuñu lu ñaaw ñunu liggéey la ñu xam mm-hmm. daan doole parce que borom Touba Mbakke boo xoolee lambaay ba ëpp moodu moodu ci àddina ndax li ñu xam dañuy ñàkk dañuy faayit lambaay lambaay du ñàkk jom bukk boo xoolee juróom-ñaari pàkk yi ci Dakaaru mm-hmm. fi gën a riche ci ñun lambaay lambaay yi ñoo ko mm-hmm. ma fan fan boo xoolee salle de vente lambaay lambaay yaa fa nekk salle de vente boo xoolee pàkk Lambaye ci biir xolu Dakar la nekk Lambaye Lambaye yee ko moom. Mhm. boo xoolee pàkk buntu Pikine. Mhm. ku ne bëgg na faa am terrain ay millions yi lay jarte Lambaye Lambaye yee koo piqué. kon ñun ci jom. ci fulla mm. ci fayda lañ ñu ci la yar macha wax lu ñaaw du def lu ñaaw macha allah mm-hmm. loolu yëpp sa confrère génn ab CFA mm-hmm. wax ñetti version wax yoo xam ne ni bokkul mm-hmm. muy maanaam nee na gis na vidéo deuxièmement nee na Bakary Sakho envoyé na ko vidéo tey ñu gisaa ko mu def sorti ne gisul vidéo Bakary Sakho li muy wax amul bu nga seetaanee loolu loolu ba jàngal nga si am fen di ter loolu la ko mag ñi tudde maa ngi jéggalu ci kàddu gi ci kilifa yi nga xam ne ci lañ may seetaan baatu bi nga fen bi ki day fen ba di ko terloo ah. maanaam di wax lu du dëgg di wax fii di wax fii gis nga nit ki lépp lu muy wax day nekk lu dëggu ci moom sa aqulaay talaay muy diggante sunu borom bi nga xam ne yàlla nga xam ne sàkk loolu nëbbut yàlla bu ko yóbbu benn doomu bu la kenn tax ngay fen baa ngay wax lu dëgg kàllidu daa jëkk génn day am vidéo yi am na abu dafay wax pour lëndëmal xelu sénégalais yi bu fekkee moom dafa gis ay vidéo nan la yelal gisul dara li muy wax gëmu ko ah, abu seva gëmul li muy wax sama xarit la te ma koy attaqué tey ba Sénégal yëpp xam ne attaqué naa na bàyyi ñaari version yi muy wax na dëggu ci li muy wax gis nga bu ñu lay rey. Hmm. waxal dëgg. dëgg hmm. gis nga du boy nëpp Kalidou dëgg dëgg rek lay nekk bu yàggee lool dëgg lay nekk bu gaawee lool dëgg lay nekk dëgg dëgg rek lay nekk. Hmm. te ay fen nag ku ko ci dëkke di ko def bis dina ñëw ñëpp xam ne dangay fen. jarut muy wax di wax fii wax faa wax fële gis nga buy wax na wax lépp loo xam te ni dëgg lay nekk mu teg ci bëtam wax lépp loo xam te ni dëgg lay nekk mu teg ci bëtam. Mm. mais lu mu wax lu mu gisul bu mu ci teg bëtam. dëgg la man Baboy Baboy Sakho keneen ak keneen ak Adama ak ñoom ñëpp laa yemale. nañu suturaal seen moroomum jullit bu fekkee vidéo yi sax dëgg la mm-hmm. mais ma ko man Makan Ndiaye te gisuma amut ku bokk ci làmb koo xam te ni nee na teg naa ci sama bët ci vidéo yi amut mm-hmm. kon du dëgg mm-hmm. nañu bàyyi di dox seen xelu sénégalais yi nañu bàyyi di yuus sénégalais yi nañu bàyyi di dox suñu maayin is nga buñ ñu nax nañu bàyyi ñu concentré ci li ñu concentré sénégalais yomba ndax ba réseaux sociaux amee ba tey foo taal coow li bari kaddu man mi su ma bëggoon a créer buzz léegi ko dëgg la ndax naa ni koy defee xam naa fu koy defee xam naa ni ñu koy defee bu ñu naxante. bu ñu naxante. macha allah bu ñu naxante mais bu nga géegee tamit ku mel ni tey pël bu rafet macha allah sànq génnoonoo di def ay sorties di def alerte ne samay video nekkul si li nga xam ne ni mooy le motif yi mu nga déggee kàddu yooyu maanaam moom dégg na retourné ay vidéo moo ngi si mu génn tey def sorte bu nga déggee kàddu kàddu pël bu rafet ban kii nga si. Sénégal comme ni ma koy waxee Kalidou ñu bàyyi rey kuy dund pël man li ma ko xamee baax rek laa ko xamee wax dëgg ci yàlla nit koo xam ni alalam du ko boole kenn. li mu yor nit ñee ko moom barke borom Touba waxuma ko pour daf maa fay waxuma ko pour dara damay wax li sama aqulaay ak taalaay li sama diggante ak moom waaye li sama diggante ak yàlla sunu borom mi nga xam ne moom lañu sàpp mm. mosuma xam ci lu ñaaw te moom dina lakk ñu bari pël dina lakk ñu bare bare bare bare bari tax mm-hmm. der bi deram bi ñu jàpp di ko tuumaal di ko tuumaal ci loo xam te ni du dëgg di ko sosal ci loo xam te ni du dëgg billaahi dina lakk ñu bari mm-hmm. dina lakk ñu baree bare ba dafa weex dunq dafa am ay nit ñoo xam te ni lu ñu tudd dañ leen ciy tuddaale loolu nag bu mu ko jàppee ne dafa bon wala loolu may ak sunu borom moom mooy dara jaale doomu adama bu xoolee bi mu duggee ci làmbu yàggut mm-hmm. waaye foo tuddee ñetti reporter tudd ko ci loolu liggéeyub nday la mm-hmm. liggéeyub nday nag day feeñ ci bërëb bi ngay liggéeyee sax da ciy feeñ mm-hmm. liggéey loolooy liggéeyub nday mm-hmm. liggéeyub ndey mooy kuñ naroon wax lu ñaaw wala kuñ naroon a defal lu ñaaw sunu borom setal la ba nga set loolooy liggéeyu nday na sant yaayam bu baax a baax Mhm. te bu dee day defal yaay mu gën koo yokk xam ne am na liggéeyu ndey mhm. waaw foofu rek loolu laa am ci lu ma koy wax mhm. macha allah ma Makan Ndiaye kaddu yi am na solo ñu baale ñu tàggatoo rek si beneen numéro si beneen waxtaan ñu waxtaan ak ala ngay tàggatoo mbokk internet yi si réew mi maa ngi gërëm mbokku internet yi ci réew mi di gërëm àdduna bu fekkee kàddu yi dafa jub nañu xamal ne sunu borom la bu fekkee dafa dëng nañu xam ne ci man la ndaw la luy wax rek te di wax ak sagoom waaw jërëjëf di nuyu ñëpp di nuyu sama xarit sëriñ Samba Ndour ndax feccam liir kat bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya di nuyu sëriñ Fallou Seck borom tap sëriñ Touba xayran di nuyu ñëpp di nuyu réew mi di nuyu Sénégal di fi naan nel na fi jàmm yàgg nel na fi jàmm sax yàlla na fi jàmm sax yàlla na Sénégal nekk Sénégal yi gën ci Sénégal yi at mi ñu dugg yàlla na bokk ci yi gën a neex jërëjëf Kalidou jërëjëf Babacar jërëjëf